tiwaawan tiwaawan a nga jël taxoon ñu samp ko te bi ñuy laata samp tiwaawan feneen samp woon na waaye ba mu demee ba iblis béccee la foofa tas lu ko noonu tiwaawan du agsi kon nag na tiwaawan xam ne ñoom ak tey jii nag lii nga xam ne moom moo am ci gàmmu gi man damay wax di leen wax man ni ma ko déggee ni ma ko déggee mooy sëriñ Moustapha Sy ak ku ko bëgg ak ku ko bañ yàlla nañu yàlla musal ci ñu bokk ci ña koy bañ waaye moom dafa bokk ci daraje bi ñuy wax muusa wiyatu mooy yonent yàlla muusa nam daan waxe te dañ ko yebal ci na bu ko waxee ñëppay mer ne waxam ji ni mu ko waxee dafa ñaaw ñoom niñ koy waxee ba moom sopp ci boppam sax mu waxal ko boppam ci alquran ne ko yadiqu sadri wala yantaliqu yi mu ne sama xol day xat ma bëgg a génne li ma bëgg a génne léeg-léeg dafay të léeg-léeg dafay sëcc kon nga la yow yàlla boole maag sama rakk aaroona moom mooy borom wax ju set ji wax ju lewet ji wax ju neex ji ndax daf ko oon yàlla du ko ne nag qulaa lahu qawlan layyinan wax leen ko wax ju nooy mu dimbandikoo rakkam kon nag sëriñ Moustapha ni ma ko xamee ba mu gënee àddina ba tey moom du wax dañ koy waxloo ñu ko waxlooyee nag dana am ñu mu neex dana am ñu mu neexul waaye nag yegg na ci ba laa yantiqu anil hawa bi ci des moo di ne ni ma ko xamee wala ni ma foogoo ne noonu laa ko xamee mën naa juum nag ni ma foogee laa ko xamee muy sëriñ Mbay Mansour toll na ci foo xam ne des na ko tuuti mu yéeg ca maxaama yi nga xam ne waa waajuram yu mag ya muy ñi ko jur muy ko jur ñooña tuuti moo tere mu yegg ca bu ngeen di seetaan rawante welo yi ñi jege lool arrivé bi fekk seen doole daanaka jeex ñu di leen ñuy sprint dernier sprint boobu ci la toll te am na maqaama yoo xam ne mënu caa yegg te déggul yenn wax yi ci noppam ne ko yàlla waxe sanulqi alayka xawlan saqilan yonent bi dañu la teg wax ju metti wax ju diis loolu mënta fexe ba mucc ca ndax bu ca muccee du yegg ca daraja ye te loolooy paas bi nag bu déggee wax joo xam ne ci ñi ko dégg ci seeni xel dafa sëcc ci ñoom nañ ko ndokkeel te xam ne yàllaa ngi koy yéegal ci darajaatil ula yi nga xam ne wa ma yulaqaaha illa alladina sabaru waaye nag wa maa yulaqaaha illa du kon nag yaa cheikhana aboubacar ibnu alxaaji mansour ibnu seydi alxaaji malik radiallahu anhum hani an laka bi dalikal waaw looloo tax ci waawan ba fa tariixa bi sampoog tey buñ toogee ab diir rek seytaane jéem fee taal aw ay waaye ay yooyu dañuy toog ba buñ ko buñ koy fàttalikoo sax bu amee ñu ko fàttalikoo di ca wax sax daanaka kenn leen déglu ndax aywa seytaane mi ko taaloon amu ca la mu bëggoon salaamualeykum yéen waa réewu Sénégal yéen ak diine ju ngeen mën a bokk yéen waa tarixa yi ak tarixa bu ngeen mën a bokk yéen waa tarixa tiijaan ak këri tiijaan gu ngeen mën a bokk ma boole leen di leen ndokkeel ci juddub yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bi nga xam ne ñun ñëpp fanaan nañu di julli ci moom wala ñu yendu di julli ci moom te mooy tagg yi ñu jëmalee ci moom te mooy lu yàlla sant naa ne ci alxuraan ne yàlla ngi julli ci moom malaayikaam yaa ngi julli ci moom yéen jëgam it na ngeen julli ci moom di gën a ndokkeel samay bokk ca Tiwaawan ndax ndékki lii ma toog di di ko ndékkee ci jamono jii may wax ak yéen doomi Tiwaawan na ko togg jox ma ko ñu soxna Umu Kalsoom si bintu Cheikh Abdul Aziz si Addabaax ibnu Seydil Haaj Malik radiallahu anhuma kon nag man lu xew tiwaawoon laal na ma li fa xew nag moom ci sama bopp jàmm laa ko gise ndax tiwaawoon bi ko la fa ka ko fa tax ka ko taxawal ba tax ñuy wax tiwaawoon ba mu koy taxawal dafa naqari kenn muy iblis mu ne ko nag danaa la ko yàqal boobu ba léegi def na fi yàq-yàq bu ne mais dafa jàll wéy kon bu teewaaw nekkee ci jàmm kenn déggu fa tànk iblis xam leen ne kon iblis réussir na waaye feek iblis a ngi jéem a yàq tiwaawan tiwaawan a nga jël taxoon ñu samp ko te bi ñuy laata samp tiwaawan feneen samp woon na waaye ba mu demee ba iblis bëgg la foofa tas lu ko noonu tiwaawan du agsi kon nag na tiwaawan xam ne ñoom ak iblis tey jii nag lii nga xam ne moom moo am ci gàmmu gi man damay wax di leen wax man ni ma ko déggee ni ma ko déggee mooy sëriñ mu Sy ak ku ko bëgg ak ku ko bañ yàlla nañu yàlla musal ci ñu bokk ci ñi koy bañ waaye moom dafa bokk ci daraje bi ñuy wax muusa wiyatu muy yonent yàlla muusa nam daan waxe te dañ ko yebal ci na bu ko waxee ñëppay mer ne waxam ji ni mu ko waxee dafa ñaaw ñoom niñ koy waxee ba moom sob ci boppam sax mu waxal ko boppam ci alxuraan ne ko yadiqu sadri wala yantaliqu yi mu ne sama xol day xat ma bëgg a génne li ma bëgg a génne léeg-léeg dafay të léeg-léeg dafay sëcc kon ngalla yow yàlla boole maag sama rakk aaroona moom mooy borom wax ju set ji wax ju lewet ji wax ju neex ji ndax daf ko oon yàlla du ko ne nag qulaa lahu qawlan layyinan wax leen ko wax ju nooy mu dem ni rakkam kon nag sëriñ Moustapha ni ma ko xamee ba mu gënee àddina ba tey moom du wax dañ koy waxloo ñu ko waxlooyee nag dana am ñu mu neex dana am ñu mu neexul waaye nag yegg na ci ba laa yantiqu anil hawa bi ci des moo di ne ni ma ko xamee wala ni ma foogoo ne noonu laa ko xamee mën naa juum nag ni ma foogee ne noonu laa ko xamee muy Sëriñ Mbay Mansour toll na ci foo xam ne des na ko tuuti mu yéeg ca maxaama yi nga xam ne waa waajuram yu mag ya muy ñi ko jur muy ko jur ñooña tuuti moo tere mu yegg ca bu ngeen di seetaan rawante welo yi ñi jege lool arrivé bi fekk seen doole daanaka jeex ñu di leen ñuy sprint dernier sprint boobu ci la toll te am na maqaama yoo xam ne mënu caa yegg te déggul yenn wax yi ci noppam ne ko yàlla waxe sanulqi alayka xawlan saqilan yonent bi dañu la teg wax ju metti wax ju diis loolu mënta fexe ba mucc ca ndax bu ca muccee du yegg ca daraja ye te loolooy paas bi nag bu déggee wax joo xam ne ci ñi ko dégg ci seeni xel dafa sëcc ci ñoom nañ ko ndokkeel te xam ne yàllaa ngi ci yéegal ci darajaatil ula yi nga xam ne wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru waaye nag wa maa yulaqaaha illa du xadin azim kon nag yaa cheikhna aboubacar ibnu alxaaji mansour ibnu seydi alxaaji malik radiallahu anhum hani an laka bi dalikal waaw looloo tax ci waawan ba fa tariixa bi sampoog tey buñ toogee ab diir rek seytaane jéem feetaal aw ay waaye ay yooyu dañuy toog ba buñ ko buñ koy fàttalikoo sax bu amee ñu ko fàttalikoo di ca wax sax daanaka kenn leen déglu ndax aywa seytaane mi ko taaloon amu ca la mu bëggoon